jërë ngeen jëf mbokki Bawal Info TV tey nag dañoo bëgg a wax ci implosion bi am ci benn Bokk Yaakaar ci département bu Mbacké ndax gis nañ ne frustration bi ma ngi gën di yokk ma ngi gën di jéggi dayo ci biir benn Bokk Yaakaar ci commune bu Touba rawatina ci commune bu Mbacké ñu baree baree bari dañu mer ci investiture yi nga xam ne benn Bokk Yaakaar def na ko ci list départementale bi ak ci commune bu Mbacké am na ñoo xam ne tamit ci quatorze communes yi nekk ci monde rural bi jiital gi ñu jiitalaat maire yi am na gox yu bari yoo xam ne ñoom ànduñu si ñu jiitalaat maire yooyu léegi nag frustration bi dafa yaatu ci benn Bokk Yaakaar ci département bu Mbacké rawatina commune bu Touba ak commune bu Mbacké ñi bokk ci parti réew mi bu Idrissa Seck bëri na si ñoom ñoo xam ne mënuñu d'accord ci investiture yi ndax ñoom dañu jàpp ne comme présidentielle 2019 Idi moo gañe woon commune bu Touba gañe commune bu Mbacké waroon nañ leen a mën a cër ci investiture yi moo tax bëri nañu bokk réew mi ñoo xam ne dañu frustré am na benn kuréel boo xam ne ay ndaw ñoo ngi koy taxawal ndaw yooyu dañu bëgg a battre campagne ngir liste benn bokk yaakaar bi ñàkk ci commune bu Mbàkke ak département bu Mbàkke te ndaw ñooñu am na si ñoo xam ne ci réew mi lañ bokk waaye am na si tamit ñoo xam ne ci APR lañu bokk ñooñu ngeen di dégg ñuy wax xawma reconnaissance kuréel yooyu ay ndaw yi APR lañ yoo xam ne dañu mer léegi nag am na ñu baree bare ci biir benn bokk yaakaar dañu wax ne ñoom dañoo gis ne Benno Bokk Yaakaar wala président Macky Sall mi def investi investiture yi joxu leen gëdd joxu leen worma ndax consulté wu leen. ndax mer mi li tax mu yaatu ci Benno Bokk Yaakaar dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne président Macky Sall da leen waroon a da leen a waroon a consulter ndax ay nit boo leen bàyyee ci benn gox ñu lay liggéeyal ay at buñ demee ba tànn jot da nga war a woo ñi nga xam ne tey ñoo la fa nekkal nga waxtaan ak ñoom ba consensus am waaye ñenn ñi dañu gis ne manque de respect la manque de considération la moo tax mer maa ngi mel ni tulleeg male ñu bari ñoo ngi def ay sorti ñii ñoo ngi mer tée ko am na ñoo xam ne dañoo mer tée ko waaye di yàq ci suuf ndax dama yàgg a wax ne considération bi président Macky Sall war a am ci ñi koy jàppale gisuma ko waaye président Macky dañ ko fal ngir mu liggéey Sénégal mais man dama gis ne taxawaay bi mu waroon a am en tant njiitum réew ci département bu Mbàkke ak ci commune bu Touba lu baree baree bari daf cee des mbirum nomination amaana ñoomu nen la ñoom ñi nekk ci benn bokk yaakaar wala mu war leen recevoir te recevoiru leen ndax ñi bokk biir benn bokk yaakaar yàgg naa leen interviewé ñuy wax ne président Macky Sall wegu leen ndax su leen wegoon dina leen defal ay nomination yu tax ñuy wax yàgg ngeen ko dégg yàgg ngeen a dégg cadre yi ak ndaw ñi di wax ne président ni muy recevoir yeneen gox yi lan moo tax ñun duñu recevoir su fi ñëwee dafay ñëw pour jaale wala dafay ñëw pour màggal beneen bi mooy ñenn ñi tamit dañoo gis ne élection locale yi mu ngi dëgmal président am na gox yoo xam ne président recevoir na leen waxtaan na ak ñoom pour quoi pas ñi nekk ci département bu Mbacké li nga xam ne ne moo jëm ci en tant que président ma yàgg wax ne taxawaayam ci département bu Mbacké des na ndax programme mu PUDC bii nga xam ne monde rural bi moo ko tax a jóg département Mbacké commune communes la 14 communes yi ci monde rural bi lañ nekk pour pourtant maire yooyu nekk ci monde rural bi PUDC bi. bi ñu leen waxee phase 2 bi danañ ñëw ci département Mbacké àpp ba bam jotee ñëwuñu commencé wuñu maire yi ñoom seen bopp mën ngeen dugg ci internet bi ngeen vérifié ko maire yi ñoo dem gis xalif général des mun Serigne Mountakha Mbacké Bassirou mun taxa yebal leen ci Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre mais maire yooyu bi ñu demee liñ doon joytu mooy programme PUDC bi nga xamante ni àpp bi ñu leen joxoon agsi na ba weesoo te defuñu fa dara loolu moo taxoon ñooñu demoon doon kalaame ji lan moo tax kañ ngeen kañ ngeen dégg walla fan ngeen gis président Macky Sall ñëw ci département Mbacké ne dafay inauguré su paasee hôpitalu Touba bi nga xamante ni Touba mooy deuxième ville du Sénégal xam ne fu dakaar amee fukki hôpitaux Touba war na faa mën a amee juróom ndax moo topp ci dakaar par rapport ñi fi yeewoo ci askan euh, ci wàllum consommation Touba ni muy participer ci économie réew mi. léegi nag dama gis ne Benno Bokk Yaakaar frustration bu yaatoo yaatu am na am na benn cadre bu ma woo koo xam ne tey ku maa ko woo téléphone euh, ci commune bu Mbacké la dëkk bokk ci apair bi euh, ñu waxtaanee dane man ànduma ci list bi te damay bokk si ñuy xeex liste bi ma ne ko yaa ngi fan mu ne ma maa ngi nii Dakar mu ne ma su ma àndoon ci list bi di nga gis position yi nga xam ne moom laay wane moo noppi gi ma noppi rek moo lay firndeel ni ànduma ci list bi te yàggatul dara ñépp dinañ xam taxawaay bi ma ci am léegi nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci commune bu Touba ndax pour nga gagné département bi il faut que nga am yenn euh, benn benn électorat bi ci commune bu Touba te li ma gis seetlu ko jaxasoo ak Benno Bokk Yaakaar jaxasoo ak waa APR jaxasoo ak ñi politique ci commune bu Touba gis naa ne ñiy jàppale président Macky Sall yëpp yëpp ci yëpp yëpp ci commune bu Touba ci Benno Bokk Yaakaar. mennum àll si la laa gis bi ñu defee investiture bi mu woo ma téléphone réagir ci bawal info ne ànd na ci liste bi ñu si des ñépp au début dañu taxaw ne ànduñu ci liste bi am na ñoo xam ne ni ñu wanee ne ànduñu si liste bi dañu noppi def silence rajo koo si woo laaj ko si xalaatam ñii ne la duma ci mën a waxagun am na ci ndaw ñoo xam ne wane woon nañ seen position génn ci presque bi am ñu leen jotawoo waxtaan ak ñoom defal leen waaye li am daal ba des te président Macky Sall pour mu comprendre ko mooy ñi koy jàppale ci commune bu Touba jamono jii ñi ëpp ànduñu ci liste boobu am na nag ñoo xam ne même bu ñu taxawee ci kaw ne ànd nañu ci seeni militant ànduñu si beneen bi am na ñoo xam ne lépp luy daane liste boobu ñoo ngi ci ñoo ngi ci loolu il faut que président xam ko li tax ma koy wax mooy ñiy jàppale président Macky dañ dut assumer seeni responsabilité du ñu assumer seeni responsabilité ñàkk assumer say responsabilité bokk na ci àndoo ci liste ba pare bëgg a wane ci kaw ne ànd nga ci liste bi boo ci àndul da ngay wane ne ànduma ci te yéen Benno Bokk Yaakaar amul lenn lu extraordinaire lu exceptionnel lu ñu leen defal lu tax ñu war leen a tënk ci yenn yi gox yi nga xamante ni tey fa la yi ëppee parce que ñooñu ñoo gën a mën a fësal seen ñàkk ànd ci listu Macky Sall bi mais yéen luñ leen teg ngeen tegoo ko seen jooyu xol seen naqar seen metit seen frustration ngeen bëgg di ko wanaasu ba nar a amee goitre joxuñu leen ay nomination faalewuñ leen fulaaluñ leen boolewuñ leen ci dara duñ leen consulter ci dara kenn du leen recevoir yéen ban ban ban taxawaay ngeen am euh, ci wàllum politique ni ngeen di politique man jaaxal na ma pourtant boo demoon Kolda commune bu Kolda Mame Boye Diao moom lañ fal directeur général impôt domaine Abdoulaye bi Balde moo jiite poste Moussa Balde moo jiite ministère de l' agriculture pourtant soo fa demee Mame Boye Diao mi àndul ci investiture yi daf ko wane dem berli su boppam te teewul président recevoir woon na leen ñoom ñett waxtaan ñoom ñett ñëpp waxtaan ak ñoom yéen kenn recevoir leen waxtaan ak yéen boo demoon tey fu mel ni tey euh, mbuur président Macky Sall recevoir woon na ñoom Cheikh Issa Sall moo fa nekk te ay pourtant ay cadre lañ ay nomination yu mag am waxtaan ak ñoom. soo demoon tey euh, Saint-Louis expliqué naa ko fi ay jour ay fan ci ginnaaw Mary Teuw Niane président def na ko fi ministre jox na ko fi ministère de de l'enseignement supérieur instant bi moo nekk PCA Petrosen teewul bi mu àndul ci list benn bokk yaakaar dafa tax dafa dem ber langu boppam aadama Faye bi mu àndul ci list bi gorob président la dafa ber liste boppam demal boppam boo demoon Darou Moussi sëñ Jili Mbàkke mack Sall lay jàppale bi mu àndul ci Modou jàng Fada dafa dem euh, ber ber su boppam ak feneen ak feneen ak feneen ak feneen boo demee loolu nga fay fekk mais yéen non seulement amul leen ay nomination président du leen recevoir li mu war a def ci département bi defu ko ci département bi duñu leen consulter yéen ci dara ba pare yéen a nekk ñi nga xam ne nag yéen a gën a maanaam euh, mën a mën a noppiwaale seen naqar yéen dafa mel ni dara méttiwu leen ci kaw te pourtant koo ci toogal ma lay wax euh, naqar bi mu amee ci Macky Sall ak ci benn Bokk Yaakaar moo tax su dee nii ngeen bëgg a doxalee ci wàllum politique yéenay gën a deltu ginnaaw ci ñiy politique ci Sénégal yéen ñi nekk ci benn bokk yaakaar département Mbacké bu dee nii ngeen di politique euh, ma xam ne bay boo ngeen jéem a bàyyi politique seet leneen lu ngeen def politique engagement la politique dafa am yoo xam ne waruloo nangu ñu la koy teg ndax xam ngeen ne président Macky Sall am na gox yoo xam ne ñemul jekk-jekk rek tànnal leen ay nit Mamour Diallo demal Louga Mamour Diallo dafa ne du àndul ci investiture bañ fa def moo tax demul ànd ji ak Moustapha Diop kon booy politique sa carrière politique bul ko fowee rawatina ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi lii lañuy waxoon ne danañu ko si wax ndax ñun dañoo gis ne au fond Benno Bokk Yaakaar ci commune bu Mbacké dañoo mer dafa am ñu bari dañu jóg pour sanctionner list Benno Bokk Yaakaar ci commune bu Mbacké am ñu bari Touba bëgg a jóg sanctionné liste benn Bokk Yaakaar ci département bu Mbacké dañu gis mer moomu ci benn Bokk Yaakaar dañu gis frustration boobu ci suuf te ñenn ñi di ko nëpp nëppal man dama gëm ne politique da ngay assumer say responsabilité bépp acte booy jël na leer ne est-ce que pare nga pour assumer ko est-ce que pare nga pour lépp lu la ci fekk nga jël mais ragal doo jël position. wala boo jëlee position tey suba ñu génn la ci dig la ay dikk intérêt personnel kon lii lañ waxoon ne dinañu ko wax ci euh, benn bokk yaakaar ci département bu Mbacké jërë ngeen jëf